ni Cheikh Mountakha jàngal na alxuraan jàngal na leen xam-xam na leen biir soxna jaara togg na añ yakkal na borom këram soxna jaara jaamu na yàlla te yàqulu ko dara ak borom këram te jamono jiñ toll sa borom kër buy nelaw sax bala ngaa am jàmmu danga ko yee ñaar fukki dërëmu mat nay nga koo koo tekk ci sa fasab na fas ci sab sër dem jëndee ko dem jëndee ko mat ñëw togg bàyyi sa borom kër muy nelaw léegi da nga yee sa borom kër muy nelaw nga ne ko jox ma ñaar fukki yu ma jëndee mat te xamoo fan la tolloon ci nelaw yi mën na am mu doon gént ay millions wala mu doon gént ay milliards waaye xamoo fu mu toll nga yee ko ngir lan ñaar fukki dërëm mu mat te li ñuy joxe ci natt yi ak li ñuy joxe ci tanto yi ak li ñuy joxe ci leneen ak leneen ak leneen mbokk yi war nañoo seetaat suñu bopp bopp yu baax soxna yi seetaan seetaat leen seeni bopp soxna yi seetaat seetaat leen seeni bopp ci see ci seeni borom kër borom kër sang la te boo ko jaamoo yàlla yàlla gërëm la kon loolu lañ fi doon jàllale su ko defee incha allahu taala ah waaw. bismillahi samil alim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 di ñaanal sëriñ Mountakha Mbacké xalifatuma ah. yàlla yàggal ko fi te wéral ay cëram te woyofal yan bi lool ci kawam ba mu yeggale li mu yéene ci yoonu maamam ji te mu ànd ko ak mboole mu jullit te mu ànd ko ak ñëpp rek ñu fekkee ak tal mu mel ni kii tey dafa am lu ñu fi dajalewaat li ñu fi dajalewaat nag ñor na góor asantama sax jigéen muy dafa am benn jigéen boo xam ne moom rek moo am benn bis moom rek moo liggéey liggéey bu rëy boo xamante daanaka liggéeyal nañu li nga xam ne moo metti woon yëpp ñu dese yu oyof yi rek muy soxna jaaratullaahi maam bu Bousso di waaye waajuru seexul xadiim di yaakaaru jàmm ñi moom mi nga xam ni moo liggéey liggéey boo xamante ni nii doomam ji mooy ki nga xam ne moo yëkkatiwaat lislaam tey mooy nga xam ne mooy ki nga xam ne demee ba tey di julli te duñu tiit kënu du tàkk suñu kaw sëriñ xat xadiim moomee moo ko waral te liggéeyu soxna jaara ba moo ko waral dégg ngeen sëñ Moussa lislaam demoon na ba toll jamono joo xam ni dafa dafa dafa amatul woon place dafa mel ni ci àddina l'islam jekki jekki dal di gedd melni nit ko xamni dafa tok ci kërëm bam amatu lako neex mu gedd ko di dem de nga mo nan l'islam di joy yëkkat ba gaan ba génn gàddaay ci sowu jant fepp melni lambay Cheikh Bamba dal di ñaan ci barki jili ni may kulli jili may xaadimu rasul fi soodaane may raw xarnu bi ani nirani bur yalla dal di signé jox yenen ba mu sekk gaay di jital ban baax lisaanu aal daal di ak Bamba ci saaru yusufa mu tee ñu yan bañ yenoon xut bi ya ak labdaal ya te xattu nuñ ko moo ko fab raw gaay mu ni Seex Bamba dëngañ di wéy te sawatul baraaya sóoratul axwaan yi la am ci wilaaya mu ni sëriñ si naaxis la ñu kaam ñun mbër yëpp soxla ñu bàmbay kaam loolu yaakaar naa ni ka nga xam ne moo war liggéey boobee mooy soxna jaaratullaahi maam Mariama bu so ni nga itam suñ musaaka naa ko soxna jaara ceeboo mii waame bokkul ak wis wis waaju doon na ba teengaate ku gàntu doo góob tuus soxna jaara jar naa sol dalli weñ di xeeñ booram di fanaan ak yendu ba ñu won la makkaanam soxna jaara mii jar naa soppikub géwél di ko woy maa di sab géwél di la woy ak ku nekk saanim ndey soxna jaara mii war naa tax jigéen nangul góoram boole jàmm dukkat ako xel bu juree mu dib yaaram soxna jaara mii war naa tax jigéen nangul góoram rek say takkaay di ko jox bu juree mu dib yaaram soxna jaara mii war naa tax jigéen defu xaadam moom mi nanguroon xaadam tey si gil na kër maharam soxna jaara mii soxna jaara mii li mu xam sax jigéen mënu ko am waaye nangu ak yéene daal la dolli pay kuy jëf soxna jaara sa géej gi moo xattan paket bay daw lu ma seen nam ba rëy rëy du tere ndoxam may baw mu ne ko soxna jaara sa géej gi loo ca daane mu diigal fukki junni junni bi xat tex tax ndoxam may daw soxna jaara sa géej gi mbambulaan mu naan walwal foo taxaw mu naan mel-mel duus ya bi naan doole soxna jaara sa géej gi mbambulaan mu naan walwal mun ko soxna jaara sa géej gii kër gu ca masambaali ku bëgg ak ndawal taalil duse yàbbi nag doole soxna jaara sa doom jee gën ku ñu mës a yónni ñoo ngi njott ni xaadima yónni ku ñu mës a yónni soxna jaara sa doom jee gën ku ñu mës a feeñal waaye mag bu bankoo ci xob kenn du ko feeñal mu ne ñu may ñu ak dégloo tuuti rek ndax ñu may ñu ak dégloo tuuti rek surtout yéen xale yi ngeen may ñu ak déglu tuuti rek kon soxna jaara bu fekkente ni def na loolu noonu yëpp wala mu jaar foofu noonu yëpp ba pare tëreewul tey ba léegi ñun suñu problème mooy lan moo tax sëy yi mënatuñoo continuer ñun loolu mooy suñu problème ba léegi benn ñu ni jigéen ñu ñoo sëyatul ndax ñoo royatul soxna jaara am ñu ni déedéet ku mel ni sëriñ Mamar Anta Sali Mbàkke ca xam-xam ba ak juddu ba ak yar ba ak teggin ja ak wàlli yu yàlla wa mu doonoon ñu ni moo amatul ñaar yi nag ñu ni dañoo bëggoon soxna Diarra Diop mii mu leera mu mu mu mu teqantal ñu ci suñu xel ndax ci ñun la jigéen ñi wala ndax góor ñi seen jëmmi bopp tam ñoo melatul ni Serigne Momar Anta Sali Mbacké loolu lañ ni dañ koo bëgg a def comme thème tey ndax yaakaar naa li fi gone yi wax lépp ci soxna Diarra doy na sëkk jël ñu ciy waxaat leneen léegi nag loolu gone yi wax lépp lu tax mu am ba noppi ñun mënatuñoo ñun ñun ba léegi ñu am problème mu doom yoo xamante ne nii dañuy mel comme Soxna Jaara wala ñun suñu jën bopp ñu am problème mu mel comme Soxna Jaara kon Soxna Jaara Jóob loolu mooy thème bi ndax ñun ndax ñun ñoo melut comme Soxna Jaara wala ndax ñun ñoo royatu Soxna Jaara wala ndax kon góor ñi ñoo royatu Sëriñ Maam Anta Sali wala ndax ñoom ñoo melut ni Sëriñ Maam Anta Sali ndax buñu fàtte ni kat soxna jaara tam li muy baax baax ak li muy liggéey yëpp su ko yàlla boolewul woon ak ku mel ni Sëriñ Maam Anta tey ndax dañoo wax ni jigéen su ko gërëm këram gërëmee rek yàlla da koy gërëm malaaka yi gërëm ko yonent bi gërëm ko saxaaba yi gërëm ko kon sëriñ Mame Anta nekkoon na koo xam ne ku egg ca yàlla la woon ku jàng alquran la woon wala yow yàlla la woon lépp loo xam ne rek mus na ko ñaanal soxna jaara rek ñaan nga dafay daal di dal te tey li ma gis man tey boo doon liggéey ba deewi tam gisoo koo xam dana la ñaanal sax ba ñaan ngay dal kon soxna jaara loolu moo waral tey suñu kàddu yi nii tey kon soxna jaara bismillah aouzu وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خدمه وسلم تسليما اجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا بارك الشيخ الخادم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yeeg taalibe yi ñu ngi leen di di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmmi àddina ak jàmmi alaaxira sutura àddina ak alaaxira ak wér ak wérle waaye di ñaanal ak Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi lool te wér ba naal bu fi fekk ak bu mu boppam mu àgg te àggale sunu borom may ñu xéewal yi saawan baawan ñu ngi barkeeloo te bañ cee gis sunu bopp allahuma amin waa soxna ma ami tem bi de meun nañ ni actualité la ndax dafa melni ni ku ci nek yang koy jiñ sa morom mu melni ni ku ci nek am nga ci part de responsabilité waye bu fekke ni daño delu sa sunu mak nya nga xamni dañ don roy yenen bi sallallahu alayhi wa sallam ñom mak nya daño teeloon na xam la leen sunu borom waxoon ndax sunu borom da leen a waxoon laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun xasana man kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom laa leen di royloo waaye ñu jël lépp di ko roy xooluñu te la leen arrangé ñu jël la leen arrangé wul ñu sànni fële comme ni ñu koy defee ñun ñii waaye itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen a waxoon ni xayrukum xayrukum li ahlihi wa ana rukum li ahli ki gën ci yeen ki gën ci yeen dal moy ki gën ci njabotam ta man kat ma len gën ci sama njabot mu melni ni mag sallallahu alayhi wa sallam lañ doon roy ba sen jigen ña nañ len len won ñu tégon len fa len sunu borom tégon ndax xam ngeen ni sunu borom dafa fonku jigen ndax saar wu ne am na ci alquran mais doo ci dégg sóoratul rijaal waaye ñun am nañu sóoratul nisaa mu nekk médaille bu rëy rëy boo xam ne sunu borom moom lañu ñu ndax sunu borom li ma naan def ñoo fonk secret yëpp si ñun la ko denc soo jëlee président bi waliyu bi nit ku baax ki kazalika nit ku safaanoo ki ñun ñëpp ci jigéen lay jóge kon sunu borom moom moo fonk jigéen mag ña nag la dimbali woon kon ni leen ko waxee dañoo xooloon na yonent ba daan yore këram ñu koy yore seeni kër respecté woon jigéen ña xool la leen responsabilité ba leen sunu borom tegoon ci wàllu dëkkal leen dundal leen wodd leen aar leen yiir leen yërëm leen te nañu ko mënee ñu di ko def looloo taxoon amuñu woon benn jafe-jafe seeni jigéen itam nekkoon ñoo xamante ni nii ñu jàng seen diine lañu ñu respecté seeni borom kër respecté seeni mbokki daara li ñuy wax fi ñu toll nii wujju nga xam ni ñoom dañoo ci bu rafet ni ku ne la nga yéene sa yéene sa ba ku ci ne mën am ko xam ni dana daj jamono kapp te doo yàqal dara sa morom ñoom góor ña nekkoon nañ ñoo xam ne nii mësuñu woon a bëgg seeni soxna di leen dolli lu mel ni xorom ci seen cin ndax lañu responsabilité ba nga xam ni moom la leen sunu borom tegoon ñu xam ko di ko jëfe ñoom dañoo jàngoon ba pare di jëfee waaye mu mel ni ñun tey dañuy jàng ba pare seulement lool mooy sunu problème lu jëm sunu wàllu góor ñi kazalika lu jëm si wàllu jigéen ñi tey masalan lu mel ni booy xool tey kii ñuy fii dajale muy maam soxna jaara ak ñamu dëkkalan gannaaw ba maam Mor Anta Sali ma leen yoroon yor leen ci yor bu rafet yamale leen ci lépp amul fenn fu muy jeng ne xëy na xool sax mën naa jeng waaye ñoom mag ña daawuñu ko fésal ba nga xam ni mën naa tas kër ga waaye ñoom soxna yi dañoo dëkkoon ci dëkk bu rafet daawuñu xëppante acide comme niñ koy waxee ñun waaye dañ daan xëppante lu baax ku nekk di laaye biire sa morom ndax ku mel ni tey soxna Anta Ndiaye Mbacke masalan moom mi nga xam ni moom mën nañoo wax ni sunuy nopp moom moo nekkoon aawo Mamor Anta Sali Mbacke ku nekk xam na ni soxna waalo mi jur maam soxna jaara moom moo ko yar ba sox Mamar Anta Sali jël ko muy soxnam waaye bañu xam serigne Mamar Anta Sali ba mu tollé ci wara a wutub saaniya mu nan benen soxna wa soxna yi comme li len ko waxé ni soxna Anta Ndiaye mbacké mi nga xam ni mom mo indi mam soxna jaara ci bir kër señ Mor Anta Sali nga xam ni yaay soxna jaara moko yaran koku nekul won ko xamanteni ni comme li may wax yenn soxna yi ndax da ci am ñoo xam ne li ñu naan mbokkum daara ñoom ñu ko daan wax te mooy li gën ndax ñi bokk daara mooy ñoo maanaam mooy ñi nga xam ne ñoo bokk kër gi fas yéene fee liggéey ku si nekk mën a liggéey ba am loo xam ne dafay daj jamono te doo yàqal sa moroom moom moom moom ci ngoreem moom moo jëli woon soxna jaara nga xam ni soxna jaara nekkul woon comme niñ koy waxee ni bu ma la fa fekk wala puusal ma toog wala jógal ma toog ndax da ciy am sunu mbokk jigéen yi ñi nga xam ni waxuma ñu takk leen rek ñu dugg si kër gi mais bu buñ leen di ngoro rek yow sab sëy commencé naa yëngatu ndax ñëwuñu pour doon mbokkum daara mais dañuy ñëw pour wujje maanaam la la fa jëlee kazaalika itam ka nga xam ni ku mel ni Soxna Anta Ndiaye moom ma ko jëli moom nekkul woon koo xam ni danaan bul fi accident doo fi toog duma la fi xajal mu mel ni nag loolee mu def du hasard ndax dafay roy soxna saarata mi nga xamante ni nii moo nekkoon soxna sunu maam Seydina Ibrahim alayhi salaam bi nga xamee ni sëy nag sunu maam Ibrahim lu yàgg amuñu ndeysaan tout tànk ñu naan ko doom dafa jël xale bu mu yaroon ñu ko doon wax saarata mu daal di koy jox Seydina Ibrahim saarata moomee am ja sunu maam Ismaayil teewul moom ki hajara dadi am isqaq nga xamni ni ku ci nek am nga yonent di dom yonent kon ku nek yakalul dara sa morom kon sonante nyaay mbake fofu la xolon ba def lolé mu defon waye sik mbaxam ba tam yitam akum gorem ku nek xamna na ni buñ nan ku njëkk a si mbokku sëriñ bi ñu ko nan maam Cheikh Anta borom gaawaan te loolee waajuram wu jigéen wa soxna Anta Ñaay Mbàkke ba tey moo ko dox ndax moo ko ni ah Cheikh man kat gis naa ni sa waajur yi ba muy bëgg a guddee àll muy bi muy waaja faatu déggoon naa muy dénk sa mag ji boppam yow it bu la si kenn jiitu kon mu wuuteeg kon ñun ñi nga xamante ni nii fi mu ne nii boo dee waxee doomu baay rek day mel ni doomu baay dafa xaram ndax niñ koy ñaawalee maanaam xëppante asib gi ñuy def ñun jigéen ñi moom la ñuy nampatal suñuy njaboot ñuy xëppante asib ba léegi li nga xamante ne ni moom lañu ñoon waroon a nampatal ñuy juboo ak bëgganteeg soppante loolu contraire bi moom mooy am kon su fekkee ni dañoo bëgg comme na nga xamante ni mag ña doon seen njaboot ñi doon nañ ko mel ñun faaw ñu jël suñuy bët teg ko fañ ko tegoon bañ a jàppee sunu bopp ay wujju mais jàppee sunu bopp ay mbokki daara waaye su fekkee ne nag comme li ñuy jiiñante kii naan góor ñi la kii naan jigéen ñi la mu mel ni sanq oustaz mi moo ngi dal jigéen ñi ne tey jii kenn nangootu ta jël sab sab ñaar fukk dem jëndee ji ko matt oustaz foofu damay wax ni jigéen ñi ñu ngi roy soxna jaara bu baax a baax waaw ñëpp si ñoom ñu ngi roy soxna jaara bu baax a baax ndax waxuma la chargé gaz wala jënd fourneau mais ñoo ngi nag bokk seeni tontine di defar ay armoire ak ay chambre à coucher bari na si lool lool lool ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di jàpp si kër gi tam bu baax a baax waaye dafay fekk ne jàmbaar su nekkee si waar day baax nga ñëw naan ko waaw góor waaw kumba dafay dolli doole waaye koo xam ni lépp loo mënti def doo am waaw góor doo am waaw kumba bu yàggee dafay rankiñ comme niñ koy waxee loolooy tax daanaka soxna yi xëy na ñoo ngi muñ di góor góorlu mais mu ñu xol bu tàng la ñuy muñee ba loolu dafay jur ñenn ci sunu doom yi ni ñuy mel léeg-léeg nga gis xale sadik rankiñ ngeen baal ma ci kàddu yi dafay fekk ne soxna si mi ngi gor lepp lu mu meun di muñ mais bu nekkee borom kërëm si biir néeg bi xol baangi tang mi ngi koy jëppi te jëppi baaxul ci ab and, and bo xamanteni ab jëppi da ci am mo xam ku gor ke jëppé mo xam ku jigen ke jëppé yag bu day dañuy guddal jël rek mom fase mom moy si muju wala yaaz billah ken bëgg ko ndax suñu borom yi mi daganal yépp mom la ko ci gëna bañ su fekké ni yaangi nekk ak sa borom kër si néeg bi sa xol bi tang nga joggé ci wanu lors ëmb sa doom sa xol bi tàng ngay nàmpal sa doom léeg-léeg nga jooy sa rangoñ yi toq si sa doom doom joojeen est-ce que dina baax xanaa yàlla moom yàlla de ku baax a baax la macha allah waaw su ko defee kon sunu mbokk góor ñi ñu xoolaat seen bopp bu baax a baax ndax li ci gën a doy waar jamono ji ndax comme li nga xamante ni nii la leen sunu borom tegoon muy dund bi wadd bi ca la nga mën nag laa wax waxuma sa borom kër mën vax nga ni ko jasineer nga may jëndal sa morom kër mën euh, borode autriche nga ni ko leneen nga may jëndal maanaam di xool koo xamante ni xëy na borom këram la am ak sa borom kër yamul kooku soo ko defee yow yaa indil sa bopp problème waaye damay gis ñu bari ci góor ñi fiñ ñu toll nii soo waxee ñun la duma takati cas social cas social mooy ku liggéeyul dama jàpp nag ñëpp ngi liggéey ndax soxna yi ku si nekkul si bureau yaa tailleur nga comme soxna maa ami mi wala ku mel ni soxna Anta wala sax yaa ngi jaay crème wala yaa ngi jaay omo te yow mi góor gi bu la leereeg bu la leerul kii jaay omo muy sa soxna nekk si buntu kër gi boo xameek boo xamul moo ngi def participation si biir kër gi ndax yére xale ya la koy fóot ca omo bala tey sa yow la waroon saabu ba kazalika bu dee jaayum ndékki ma boo xëyee mooy soosal xale yëpp ba soosaleen la yow su fekkee ne xëy na laax ba euh, soxna jaara daan def xëy na laaxub suba teel amul waaye soxna yi ñoo ngi omelette ñoo ngi def seen yu baax di ko joxe waaye day fekk ne xëy na sànq rek li ñu waxoon mooy ka leen waroon a wax waaw góor waaw kumba da leen koo waxul ba léeg-léeg ñu koy defee xol bu tàng wala buñ koy def defit duñu si continuer waaye xëy nañ lu ëpp si góor ñi ñooy doxee noonu mais am na góor ñoo xam ni ba tey ñoo ngi roy Mamor Anta ñoo ngi roy la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon dawuñu seen responsabilité benn yoon ndax yow mi góor kat dañu ne la sa soxna même su amoon milliard yow nga yor sa 1000 francs moom bu mu xam sak nay ndax bokkoon na si juróom ya ñu sëriñ ba doon dénk bokkoon na ci ne seenu njaboot bu ñu xam seenu nay léegi nak mu melni ni gi ñoy xam nay gi mbedd ma xam tabe gi njabot gi ñoy xam wexte gi gaynde gi mbedd ma xam lewet gi ga doon fam xar mu melni am samba alar lay doon te yakarna alquran alxuraan dénkuñu lolu kon su fekke ni dañu bëgg lepp lépp waat ci yoon rek dañuy jema delu waat rek ci alquran jema delu ci njangalam yenenbi sallallahu alayhi wasallam. buñ ko defé lépp dana mucc ayib incha allah. kaddu yi am na solo lool dëgg yàlla macha allah mais am na loo xam ne duma ci d'accord ak yow li ma dul d'accord ak yow mooy ñun jigéen ñi maanaam ñun jigéen ñi ñun ñoo war a sàkku ngërëmul góor ñi. ndax itam yaa ngi wax ni soxna jaara maa ngi lay wax sànq ni la soxna jaara dafa toppoon ndigalul Mamour Anta Sali waaye Mamour Anta dafa doonoon koo xam ni. bu ñaanee yàlla day nangu waaye góor it bu doon mandi su ñaanalee borom su ñaanalee soxnaam yàlla da koy nangu te man Jaara ku dégg liggéeyam bu sell bi xam ne du woon xeej ji kër Sëriñ Mamoon Anta Sali maanaam boo xoolee ndax soxna koo xam ne sa xeej ji la ci yow doo ko téyeloo sàkket mu fanaan fa nga fàtte ko kon loolu doon xeej ji ñu xam ne itam xeej yi du ñu jur du ñu jur doom yu baax yi si kër gi xaje kër gi rek en général moom la ñuy jur soxna ji kër way juróom wu jigéen dem fa dem bu gàtt dellu si fekk ñu def néegam wuddu fas loolu duñ ko def ab xeej soxna jaara bi mu ñëwee dafa dem ba ci sëriñ Mamadou Anta Sali mu laaj ko ndax am naa ndigalul génne fas wa ba mu jox ko ndigal mu daal di génne ji fas wa kon ku nekk xam na ni kon kooku bu doonoon ab xeej ji kenn du jël ab néegam di ko def noona kon ñun ñun ñun suñ jëm bopp ñoo faible ñun góor ñi ñun jigéen ñi asafarlaa ñun ñoo faible ñun ñoo war a liggéey ñun ñoo war a muñ ndax lan ndax suñu doom bu ëllëgee xaadimu rasulillahi amatul de waaye xaadimu xaadimu rasulillahi jeexu fi muy murid saadix yi kon nañu liggéey ngir nga ñu am ci murid saadix yi waaye nag lii problème bi mooy dañu du téye té kuñ téyewu nak nga dem kuñ bayyi nga dem loolu mooy jafe-jafe bi kuñ bayyi rek nga dem te dañu du téye da ngay ñëw fas yéné jëf waaye duñ la téye dañ lay bayyi nga dem té kuñ bayyi nak nga dellu sa kër ndey sa kër baay ndax fase naa la saa bu amee rek l'islam àndatul ci sëy booba dégg nga sëriñ Moussa ni jigéen borom kërëm mooy boromam mooy tax mu xam yàlla am aljana am boromam mu ne laata dumurillahi taxata bi la taxata sow ji taxi suufila wala tax la mu ann jihaada niswati fi taaxatil aswaji duunal miriyati faay فهنزما زوجة رضي عنها رضي الله عنها, عنها ربنا بنعمته فإما إذا لم يرضى الله عنها أبدا فليس فليس يرضى الله عنها سرمدا mu ni góor gu seere ni man dee gërëm naa saa soxna si yàlla ni ma nit gërëm naa yonent ba ak saxaaba ya naan ko am nganam nit ak jinne ak malaaka ñëpp di ko gërëm ñu daal di koy signal mbégam ca diiwaan ni ko wéyal xal janna dootoo dem niiraan ni ko ak aljanna dootoo dem ni daan mu ne jëfam mbindal lu gën tuba yi lay doon fa diwaan lu mu wudd wudd da xam na ridwaan maanaam jigéen su jëfee ci kër borom këram jëf joo xam ne jëf ju rafet la doonoon jëf ja dafa bon wala dafa tuuti sax dina mel ni na eh, nañ ma baal ci kàddu yi ngemb buñ ko tekki woon ngemb gone buñ ko tekki woon ci biir mbooloo ni muy mel ci xet du teree jëfam joojee donte noonu la mel sax day am day am ridwaan bu ëllëgee mu ni riddan wa rahmatan minallaahi baddi fa xay xayru min dunya maa fii baddi Cheikh Bamba ne ngërëm lu yàlla seere moo ma gënal àddina ji di meere kon nag nañu sàkku suñu ngërëm yi borom kër yi donte duñ ñu téye kuñ bàyyi na nga dem waaye képp ku ñu téye rek sàkku sa ngërëmul borom kër te nga liggéey itam ngir say doom su ëllëgee ndax ñun ñooy ñun ñoo faible ndax na yontu bi salaa salaam dafa ne su ma doon digal kenn mu su jootal kenn jigéen laay digal mu su jootal borom këram ndax li ko war ci ay xaq ci ay diggante diggante ak kon moo doon digal góor mu su jootal kenn ndeyam laa koy wax mu su jootal kon ñun tam nañu gën bu baax a damay wax ni ñun xëy na dabu ci suñu bopp sax day mel ni weesu na ndax jikko yi xas na sax ci ñun ba pare waaye nañ dabu nañ dabu ci suñu njaboot gi kon ñi def lii mel na ni ñi nga ca ñi nga xam ne ñoo jël seen i doom indi ko soxna Anta Dem ngir mu def ci ñoom jikko yi soxna Jaaratullaahi Maam Mariama Bousso ji mel na ni ñanga ca kon yàlla na yàlla defal gone yu jigéen yii ak yu góor yi tawfeex ak saxaadatu daara yi ni ba su ëllëgee ñu am ci xaadimul xaadim rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon kàddu yi am na solo macha allah ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ani Cheikh Mountakha